waaw moo kam ren démb nag moom xam dañoo gis ni waa gendarmerie euh, compagnie bo Dakar dañu jàpp ay nit yoo xam ne dañ doon rey ay fas euh, yàpp fas di ko jaay mbir moomee nu mu demee moo capitaine. waaw euh, dañoo amoon ay patrouille yu ñu doon def biir ànd comme ñu jëlee ci quartier yi nekk responsabilité gendarmerie bu da campagne dak gendarmerie bu Dakar yi. Mhm. patrouille boobu nag ay élément yu légion gendarmerie d' intervention ñu koy gën a woowee LG yi ñoom ñoo nekkoon boori géej gi. Mhm. ci ngoon si. Mhm. ñu rombee ba géej ñu gis fa ay traces deret yu doon tuuru couleur bu xonk la ñuy wax pour euh, gën a yem ci liñ ñu xamagum. Mhm. doon tuuru doon dem ci boori géej gi. Mhm. ñoom ñu dugg intervenir pour xam exactement la xaw foofu noonu. ci lañ gis euh, benn waay bu doon rey ay ay benn fas. rey benn fas ba pare commencé di ko defar. di ko fees ko waaw di ko di ko fees. ci lañu woo brigade bu ànd. Uh-huh. ñëw fa commandant brigade bi. Euh, ci guddi gi ñu def perquis ñuy woowee perquisition. ñu fekk fa ay euh, ñaari bopp fas yu bokkul bopp bi ñu fekkoon dèjà ñuy rey ci frigo. Uh-huh. waaw. ci loolu daal euh, enquête bu toll ko. fi mu toll nii ki ñu jàpp nag moom ne ñaan ñu ci jàpp ci enquête lañ toll ko mënu ko ñu wax ci gan ci seen tur wala ci léegi lañ def wala lañ def. waaw. kon daal kenn ki daal fekk ngeen ko mu fe mu mu rey fas yu ba koy fees. waaw fekk nañ ñu yore fas ñoom bay fees der ju jigéen ci biti. bi ngeen demee fekk ko muy fees bi ngeen ko jàppee benn benn nit la woon. waaw fu mu nit lañ fi fekk ak ko doon jàppale. ca kër ga fa mu dëkk fekk ngeen fekk fa yeneen i bokk fas yoo xam ne. Eh, moom fa dëkk la ko doon defee fa mu dëkk la ko doon defee. la ko doon defee bañ duggee ci biir lañ fekk euh, frigo bi. waaw yeneen ñaari bopp fas. ñu wane ne o moins kooku dañoo gëm ne ñetti bopp fas. kon yeneen ñaari bopp fas yi ci biir frigo bi ngeen ko fekk. ci frigo lañ ko fekk ah kon kon xanaa ndawal lool moom jaay na ko ba pare kon xanaa. suñu toll nii daal ngi ci enquête. waaw xam ne mënaguñu wax ndax jaay na ko wala jaay ko. waaw avec les services vétérinaires dinañ jéem a xool ba xam. ndawal mm-hmm. li mu wax foofu yëpp ndawal lan la. ak mm-hmm. fan la ko ndax moom boucher la wala lan la. parce ci moom moom du boucher. du boucher ni mu doon def ba fu mu doon fa euh, moo tax mënaguñu wax ndax jaay na ndawal wala jaayul ndawal. mooy woo population yi. genre yooyu noonu waru mën a nekk ci koñ. ba jeex teg di kenn doo gis ndax deret yu wàllu xonk luy génn seen tur ci kër wala ndox muy génn ci kër mu xam naa ne ñàkk koo gis mm-hmm. bu dee aussi dañoo ragal ku leen tudd wala ku leen ci kii amul mm-hmm. euh, benn njàkkeer gu ci am mm-hmm. gendarmerie nationale police nationale yéen ñëpp lañ fi nekkal am na numéro yi fi nekk yoo xam ne ku ci woote dinañ la mën a exactement léegi li ngay def te doo ci feeñ incha allah ñu ñuy ñaax population yëpp Sénégal yëpp ku ci gis loo xam ne peut-être yaakaar nga ne mën na yóbbu réew ci loo xam ne du noonu nga contacter service euh, yi nekk ci